moom xam na ni jeexal na elle le sait xam na ni jeexal na donc fu mu toll ni euh, benn option rek moo ko dese mooy provoquer nit comme ça mu mën euh, mettre le pays en état de siège, qu'est armée euh, pour euh, force toog ci pouvoir ok dama leen di wax tuuti ci Moussa Fall bu ngeen bàyyee xel tuuti jour biñ ko nomee wala juste avant ñu koy nommé génn naa def live wax leen ni que Macky Sall dina nommé Moussa Fall ok euh, te c'est uniquement pour Repressione songko se unigma por Trohal songko C'est unigma por Tal Dekabi. te effectivement lolo mo nek de am le ma kon waxoon exactement mo nekk de am dama leen di nettali tuuti ah, ci Moussa man dama nekk xale moo judo quartier bu ñu Lamsar Lamsar tu es na trop grâce à, à, la lutte sénégalaise ay fi ñoom ay Siteu dëkk ak ak yooyu ay Tidiane Faye ak yooyu samay booy lañ uh, ma juddoo foofu donc foofu c'est entre Thiaroye sur Mer ak Thiaroye Gare quoi ci route nationale bi ma màggee foofu donc Thiaw na ak Lamsar benn quartier la si ay quartier yu ndaw lañ quoi takolo takkolo venet uh, mai dem gejowa di dem di sara munubari di uh, dawol troto di dem genaurai di dem di dem marsa sandeka <laughs> di sa mango ak <laughs> orange di dem uh, marsa charoi di dem charoi sume di dem gen di dem seka bob seka se existe gul kwa dem ay mbau poti mbau grand mbau ak yoy refes fune yow joore suñuy xaj wala di dem di fuwalee ay euh, pot meew <laughs> di dem di okre suñu mayo di dem di sangu géej di dem di xama di plané quoi affaire xale dox sa ndaw mais surtout dañ daan dem Petit Mbao di wuti darkese ak ndaa maraas buñ masaan dem foofu dugg ci biir àll bi ci zone industrielle bi foofu noonu ci gannaaw ah, gendarme yi monté ci fas yi dàq ñu ñu daw ñu dawee ñu dem dugg ci benn gàllay quoi bu nekk foofu ci entre zone industrielle bi boobu kër rek moo fa nekkoon ci buntu kër gi mu am benn butéegu naar bu fa nekkoon la ma leen di wax ni ça fait ça fait plus de trente cinq ans ci gannaaw wala lu ko jege ok euh, foofu këru Abdou Karim AKF transporteur la woon bu mag yàlla na ko yàlla yaram pa bu baax buñ musaan dugg foofu après ñu ñaan ndox ñu may ñu ndox ñu naan ah, may doomam yu fa nekk ak affaire yooyu yenn doom yi samay morom lañ yenn maa leen mag et tout ça quoi léeg-léeg sax ñu jox ñu laax parce que xam naa ay sarax yu ñu doon génnee la à part kër googu en face beneen kër rek moo fa nekk moom mooy kër Adama Wade fu nga xamante ni ñoo doon jaay picc yi quoi foofu ñi dëkk côté boobu dinañ xam li may wax ni ak samay morom yi ma doon ok uh, abdou karim fall moom pratiquement abdou diouf moo ko may xaalis mu ñafe premier départ am mais après abdou diouf jox ko ay marché ok lu tax abdou diouf jox ko ay marché baylaat moo leen abdoulahad xalifa général de mooy moo leen boole loolu moo multiplier xaalisam mu nekk nit ku baax ku jullite murid saadir ku participer ci développement mau mouridisme mu jàngal baylaat business parce que comme ñoom ñaar ay morom lañ te ay xarit dëggantaan njaay d'ailleurs bàyyi laay bés bu musaan ñëw ndakaaru foofu lay fanaan foofu noonu kër ci kër gi foofu kër Abdou Karim Karim Karim Fall foofu ci zone euh, industrielle bu Mbao parce que kër gi ci gannaaw dafa am ngande garage fa la yi nekk ak mécanicien yi euh, ñoom waa ngaay mexele léegi li yàlla di def may màgg di màgg di màgg ba génn Sénégal ba tukki góor àdduna dem fu ne ci kaw suuf après ma am aazu takk jabar ma takk soxna ba ma takkee soxna ci loolu ma xamante duggante ak sama famille soxna ah, ci ñoom mu am benn cousin am cousin bu dooberaame sax un imbécile de douzième degré quoi xam ne intérêt am rek d'ailleurs bokk na sax ci ñu tas boobu noonu ko cousin bi xarit la ak doomu Abdou Karim Fall ñoom Moussa Fall ñoom Doudou Fall Dods ñoom Hamza ñu baax ñu yaru ñu nite ñu ñu réussir leur vie vraiment yàquñu seen alalu pap may kenn du leen dégg ils sont très discrets très calmes ay nit yu am xol yu extraordinaire juste comme seen papa Abdou Karim Fall boobu ak général Moussa faal ay mu bàyyi lay mais lan moo tax Abdou Karim Fall nekk nit ku nite ku baax yàlla na yàlla oyofal suuf ca kawam ay doomam baax comme pas possible ba pare doom baay Moussa Fall nekk doome rab je vais vous dire pourquoi Moussa nekk doome rab parce que yaayu musa Fall doome ram la yaayu Moussa Fall moo nekk fam bu bon boo xam ma sëyul ku bon moo tax mu jur lu bon moo tax booy takk soxna walla ngay sëy ak ku góor da ngay tànn ki ngay sëyal ndax deret dafay topp doom deret dafay topp doom mën ngaa nekk nit ku baax ku jullite ku ragal yàlla ku rafet xol nga takk jabar bu doome raame mu jural la ay doome raam loolu moo dal Moussa Fall ba aduna du tukkee du baax et je vais vous dire une chose nga Moussa Fall Serigne Bassirou Gueye ak Macky Sall ces trois personnes là barke salatul fatiha sama loxo ci alxuraan bu ñu deewee sax bu ñu dinañ leen sulli daf leen ci caisse yow bu leen tribunal devant un juge un juge neutre ñu juge leen ba pare yow bu leen ci prison gassal leen fofu noonu sur leen foofu noonu ba ñu purge sen sen pen ba sen pen jeex ñu sulli sulliwaat leen yóbbu leen ci seeni mbokk ñoo xam fu ñu xam ñu suulaat leen retenez bien ce que je viens de dire parce que exactement noonu lay demee duñ leen bàyyi duñ leen bàyyi on va pas vous lasser duñ leen bàyyi xam ah, nga Pape Alé Niang man ak moom ñoo dëkk parce que moom jaaro semaine la dëkk man ma dëkk tableau ca Lamsar moo tax petit frère am boobu noonu gaa ma manqué de respect ma ne ko da ma xamoon sa yàpp parce que maa xam sa baay xam sa ndey xam say frère xam say sœur xam fu ngeen jógee xam seen histoire famille xam lépp mais moo tax du ko tontu du wax ci ñoom mooy petit frère am bu noonu nekk Espagne man ku ma xam danga may respecté bu comprano ga uh, attends une minute Bon, voilà. Euh, rapport bi, live am Lurjur, lalu loolu lañ ko convoqué kan moo ko convoqué Ismaila Madior Fall Ismaila Madior Fall ñun ñëpp xam nañ lu baayam nekkee woon Rufisque GPMI ak ak affaire yoo xamante ne mos wax si sama live waaw du ma ko tontu un professeur éminent comme Ismaila Madior Fall jaay ngorom ndax alalu adono, tu vois fekk Macky Sall mi la manipuler pour des intérêts personnels yaa ko gën a jàng yaa ko gën a nekk sénégalais yaa a tekki ci réew mi mais tey mu lay manipuler quoi comprendre nga yéen ñëpp vous allez payer benn par benn man maa leen ko wax de mën na jël temps nag mën na jël ay jours mën na jël ay semaines mën na jël ay mois comme mën na jël ay années comprendre nga mais un jour viendra yéen ñëpp da ngeen fay li ngeen nekk di troxal sénégalais en ce moment euh, rapport boobu noonu. Ousmane Sonko brandir na ko lot jour bu muy def dernière conférence am conférence de presse am mais Lente leen teye Ousmane Sonko allez allez la prendre allez la récupérer ngam xol ndax tay ndax da ngeen fanaan Sénégal ko ngeen nalaw kon bu boba pourquoi Pape la ñam parce pas Pape Alé Niang vous, vous avez essayé de le corrompre plusieurs fois mu bañ mu rejeté sen alal te pourtant bu ko neexoon tay milliardaire lay nek bu nekkon doomu raam comme yenn Sénégalais nek nekk doomu bu ko neexoon multimilliardaire lay nek

just sa yooyu noonu périg la da koy teg de temps en temps rek ça dépend dañ ko formé quoi foofu lañ ko formé nan la muy def Ño, ño, ño, ño, se arma la forma comprendre nga il faut ñu jóg ci seen a kaw léegi nag ñi leen di xeexal ñëpp Macky Sall moo leen di intimider moo leen di jàpp di tëj jàpp activiste yëpp jàpp nañ leen tëj leen léegi sensibiliser partage information yi am parce que aussi li nekk di def je pense que ñun ñoo leen ci bàyyi xoolal loolu journée woon naa leen Canucuros. Конго време е прозо, прозо. Sonko ko jani te ci ay affaire ñàkk fu la mag du jóg rek topp benn boor commencé ko soutenir commencé ko comprendre commencé ko bëgg c'est parce que ils मामला डाव से, से, से, से ñoo protesté ko mais Macky Sall di ko toroxal Macky toroxal parce que nee na Kabirou c'est l'unique entrepreneur sénégalais boo xam ne financé ça, mais s'il était prudent du dem France c'est vrai que il a la nationalité française mais du dem France dafa toog dafa bëgg a poser candidature am en deux mille vingt quatre gars yi dañuy wax deux mille vingt quatre mais élection vingt cinq la euh, loolu aussi bokk na ci lu tax ñu toroxal ko Macky Sall aussi ak sonko amuñu ben contact toroxal na doomu jàmbur kabur mbooy mo ngi prison fu mu toll ni kabir sénégalais dañ ko waroon protéger parce que suñu ferte la dëkk bo xam da fay toroxal ay doomam dëkk tuba bi bo nekk entrepreneur nga intelligent dañ lay protéger dañ lay financer dañ lay sập đầu gối xoolal ñoom intelligent woon sax ñoom bu intelligent woon dagantaan Macky bu intelligent woon dagantaan tey tey du jour bu mu waroon arrêté Pape Alé Niang tey du jour bu mu waroon arrêté promouvoir ok information bobu nonu. saragalay jot ni kontan kontan popularité mi yek tuuti wala sa même bu yegul tuuti au moins ñi ñi concentré wu ci loolu mais déjà information boobu sul na ko complètement déjà Sénégal yëpp arrestation wu arrestation wu Pape Alé Niang la ñuy wax moo tax ma ne leen man mage xaw ma kan moo koy conseil wala kan moo yoro comprendre nga xamuñu dara ay cuune lañ ay cuune ñoo leen war dana ñëw ci loolu parce que arab xaalis bu bëri la jël talab subventionné commerçant yi pour ñu mën a wàññi loolu ba élection présidentielle yi passe mais ay naxam la parce que non ma kii la très dangereux ah merci